bismillahi arrahmani irrahimi wa salla allahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa jaala fiha sal baraka alhamdulillahi ala lwai musaba iblisa bilantihai الحمد لله على اللواء مصب إبليس بلا انتهاء لله سل الأرضين والسماء كل ولي قد جاد بالنماء بارك لي في الحركات والسكون rabbi lasi xat xaadali kun fa yakun rabitu fi wa fi lmujahada wa hinda xisbillahi kullu saada kitaabati taduuru taxta alarsi bayna alkiraami xaabidi silfarsi haraba iblisu bilantihaai li xayri saati wa namaaluhaa'i haraba iblisu bilantihaa'i li xayri saati wa namaaluhaa'i fi lxaali walmaali amin ya rabbal aalamiin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin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 ci ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar moom it bu jëlee ndigal ci ay kilifaam Serigne Cheikh ak Serigne Mouhamed Moustapha ci waajal fàttaliku ganek àdduna ak Serigne Abdul Xaadir Mbàkke ki nga xam ne mi ngi nekk ñetti fan ci weeru muharram war nekk le 22 ci weer ñu nekk ñu sëriñ bi bëgg ñu amal jataay bi ngir fàttali mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lenn ci dunduk Serigne Abdul Xaadir Mbàkke nga xam ne lépp yiw la lépp ay bind la ay jàng la moo tax tey yii ñu teew fi ak ay bokk yu baax di njaboot ci kër gi sëriñ Cham bu sa Abdourahman nekk ci sama ndeyjoor ak sëriñ Fall bu sa Tamba nekk ci sama càmmooñ ñu war a seq jataay bi waxtaan ci fàttaliku sëriñ Abdul Xaadir waaye jaare ko ci xadis boo xam ne eh, tamim addaar yi radiyallahu anhu moo ko solo te imam muslim génne ko ci saxiixam wax ne yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne addiinu nasiha mais bi mu ko waxee ñu ne ko liman ya rasulullah qaala lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimati almuslimina wa ammatihim xadis boobu lañ bëgg sun ñaari bokk yu tedd yi jàngatal ñu ko dëgg-dëgg lu muy tekki ak nu ko sëriñ abdul xaadir mbàkki jëmmale woon kon ci njalbeen gi danañ jox sëriñ Cham bu Abdou Rahman mu jàngatal ñu xadis bi wax jooju ay salaam wax ne diine nasiha lan mooy nasiha lan mooy an nasihatu lillah wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li ayimatil muslimin wa ammatihim bu ñu ko leerle ba noppi nag ñu jox sëriñ Fallou Bousso Tamba moom mu mbubb la mu solol ñu ko sëñ Abdou Khadir naka la naka la ko sëñ Abdou Khadre jëmmale woon ci pas-pasam ci jëfam ci jëflanteem kon ñu jébbal kàddu gi sëriñ Cham ñaan borom bi defal ko tawfiq euh, di bàyyiloo xel mbokk yi ne jataay yi dañ koy waajale bi bisub sëñ Abdou Khadre boobu ñu dëgmal nga xam ne sëriñ mag bi waxoon na ci wax ju rëy euh, ñu di ko fàttali mbokk yëpp kon sëriñ Cham bismillah aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbi wa wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan ñëpp di leen ziyaare di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi ki nga xam ne mooy kilifa kër gi di Serigne Cheikh ñu Serigne Abdoul Qadir di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Qadir bi waaye ziyaare boobu ñu koy yéegal ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Muntaka di ko ñaanal moom it yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko euh, Serigne Mbacke Abdourahmane li nga xam ne moom nga junj muy xadis bu tedd bii nga xam ne mooy addiinu an nasiha te mu doon xadis boo xam ne dañ koy limaale ci xadis yi nga xam ne ñooy ponki maanaam bu doon bu doon xadis yi nga xam ne ñoo ëmb lislaam ëmb diine ji dañ ko ciy boole mu bokk ci xadis yi nga xam ne dafa bokk jawaamiul kalim ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam danaan wax benn wax bu gàtt waaye bu ëmb maanaa yu baree baree bari maanaa yi ci xadis bi nag nekk maanaa yu war a xam lool ndax buñ ko xamee danañ gis ñi nga xam ne ni la ko Cheikh Abdul Xaadir radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi doon dunde ni nga ko waxee nag dañoo baaxoo rek di jàngat lenn ci euh, njàngalem lislaam ak li nga xam ne dafa am solo ci diine am solo ci jullit yi te lu ci nekk Cheikh Abdoul Khadir nekkoon ci royukaay léeg-léeg ñu di ci indi ay tomb moo tax tomb bi nga indi tey ji nekk tomb bu ama am solo euh, buñ waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ad diinu an nasiha waxiin wi rek dafa dafa amal dafa feeñal solos nasiha te mooy buñ ko dee wax ci wolof mooy laabiire euh, ndax ni mu waxe ci ne alxajju arafa boo xoolee waxin woowu la wax ci xadis bi kon muy wane solos laabiire ne daanaka diine yépp diine jëpp mën nañ koo tënk ci mbirum laabiire mbirum laabiire nag euh, dafa doon loo xam ne dañ koo soxla ci jamono ndax dañoo toll jamono joo xam ne day jamono yi lu ñuy wax ananiya mooy égoïsme nga xam ne kenn ku nekk sa bopp ngay xool sa intérêt bopp ngay xool euh, saw doxal yi nag sa lu lay ñoddil njariñ ca ngay wax ca ngay dox dem sax ba ñu baree bari yéeneetuñ keneen aw yiw yéeneetuñ keneen lu baax kon fàttali leen ak diinu nasiha ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indee ngir wane ne diine jëpp jëpp rek mën nga ne mën nga koo delloo ci nasiha laabire kon jaadu na baatu nasiha boobu buñ ci ñëwee te mooy laaye biir dañ koy faral di wax wolof wax wax baatu nasiha bi dafa gën a yaatu léeg-léeg lim ëmb ci déggin li nga xam ne moom lañ ci am ndax day mel ni booy laaye biir nit rek wala laaye biir rek mi ngi tënku ci waxal nit ki loo xam ne njariñam ca nekk loolu dafa bokk ci nasiha waaye loolu rek du nasiha nasiha dañuy wax ne li ci gën a li ci gën a lim ëmb bari na waaye bokk na ci mooy yéene nit ki aw yiw waaw yéene aw yiw bokk na ci maanaa yi nga xam ne ëmb na ko mooy sax xol bi nga bëggal ci ñeneen lu baax di leen ci woo di leen ko digal waaye it bañal leen ab safaan di leen ko tere di leen ko moytuloo nga xam ne kon day mel ne ki ëmb nasiixa mooy ki ëmb lu sell ci biiram loo xam ne da ci yéene ñëpp aw yiw yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp lu baax kon ki nga xam ne lim bëgg lépp mooy nit ñi defaru lim bëgg mooy société bi defaru lim bëgg mooy nit ñi am jàmmi tey ak ëllëg nga xam ne loolu la ëmb ci xolam kooku loolu dañuy wax ne kooku moo ëmb nasiixa ndax baatu nasiixa mi ngi jóge ci nos bi fii sel nga xam ne amoon lenn looy wax mooy génn ci sa biir lu safaanoog la nga jàpp ci sa xol euh, bu ñëwee ci xadis yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne ni nga ko toftalee laaj nañ ko man ndax dafa mel ne saxaaba yi ridwanullahi alayhim bu ñu toogee ci yonente bi sallallahu alayhi dañuy bëgg jàngal ñeneen ñi ñëw waaw nga xam ne si yonente bu waxoo ñoom ay arab lañ ay arab lañ baati arab yi la muy tekki xam nañ ko waaye dañuy bëgg nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam gën a ndax moom day jàngale dañuy bëgg njàngale mi gën yaatu moo tax bam la bam ne ad diinu an nasiha dañ ko laaj an nasihatu li man mu ne lillaahi wa kitaabihi wa li rasulihi wa li aimmatil wa ammatihim kon kon ni ñu déggee woon baatu nasiha mooy laabiire nga xam ne day mel ni da ngay jàkkaarloog nit di ko laabiire kon buñ gisee xadis bi war nañoo delluwaat xalaat ne ah kon yàlla moom naka lañ koy laabiire an nasihatu lillaahi noonu la kon baatu nasiha dégg-dégg bañ ci amoon war nañ ko bàyyi xel kon nekkate nasiixa bi nga ko jëmale ci suñ boroom waaye nag bu boobaa mooy gëm yàlla wéetal ko jaamu ko jox ko li mu moom sellal ko ci lépp loo xam ne ay naqaais la nga xam ne tawxiid bu wér doxee doxale ko sa diggante ak sa boroom loolu moo jiitu ci nasiixa nasiixa li kitaabihi téere alxuraan bi mu wàccee mooy danga koy gëm waaye dangay jëfe ndigal ya ca biir da koy tere ya ca nekk danga koy moytu da nga koy kaweel ci lépp lu dul moom danga nga cay attewoo kon daal dangay ngay def téereb yàlla bi muy sa niitukaay bi nga xam ne moo lay niital yoon wi ngay jaar nga xam ne danga ko da ko da ko fonk ci jàng waaye danga ko fonk ci jëfe danga ko fonk ci ci pas-pas nasiha li rasulihi mooy topp yonente bi alayhi salatu wassalam topp sunnaam topp ay ndigalam bàyyi ay tereem def yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy sarooyukaay ci lépp loolu kon nasihatu li yi aimatil muslimin da ciy dugg ñi nga xam ne ñooy jiite ñooy jiitul jullit yi waaye da ciy dugg it ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam jullit yi loolu nag kon ki nga xam ne jiit la nga nga di ko wax dëgg di ko jàppale ci loo xam ne njariñul ñi ñëpp la loolu dëgg bokk na ci na ci ci ci laabire ko bokk na ci nasiixa ki nga xam ne boroom xam-xam la nga jëflanteeg moom ca xam ca yaatal xam-xamam ca ca ca ca ca ca dimbalanteeg moom ci xam-xamam jox ko may boroom xam-xam loolu ci nasiixa la bokk buñ ne ah amatul muslimin nag kon mooy mooy maanaam mi gën a xam ñu gën a yaatu mooy yéene leen aw yiw yéene leen lu baax di leen wax digal lu baax di leen tere ab safaan di leen xamal fi ñu war a jaar di leen xamal li leen di lor ngir ñu man koo moytu loolu lépp dafa dugg ci nasiha li muslimin loolu nag boo ko xoolee muy mu doon lu ama am solo nasiha ndax li ci nekk ci solo tax na alquran ci boppam xamal nañu ne nasiha boobu bokkoon na ci maanaam maanaam fonction yonente yi alayhi salatu wasalaam maanaam li leen taxoon a jóg gis nañ euh, ayat yu bari suñu borom dañu ñu xamal ne yonent bi di wax ak ay nitam na leen man dama leen di laabiire man ku leen di laabiire la koo xam ne li ma leen di wax lu wóor lay doon bari na ay ayat yu bari yoo xam ne ñëw na ci alquran suñu borom di ñu wax ci ala lisaani haulaai l anbiya alayhim salaam di wax ci seeni làmmiñ man damaa ñëw rek ngir laabiire leen kon ki la laabiire mooy ki nga xam ne lam lay wax ak lam lay digal foolu ci njariñu boppam waaye ci sa njariñ la nga xam ne ki ki bu nekkee koo xam ne da koy da koy da koy def nus da koy laabire kon moom da ko war a déglu da ko war a topp ndax moom may wax njariñu njariñam tax koy wax waaye yow mi muy waxal sa njariñ moo moo moo moo moo ko tax di wax kon loolu dafay doon lu am solo nga xam ne kon ñi doon ñi doon yonente yi alayhim salaatu wasalaam dañ leen a doon ca loolu kon Cheikh Abdoul Khadir kon loolu nga xam ne moom la Sëriñ Fallu nara waxtaane dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo doon yonente yi ci fépp foo xam ne wazifa la wala eh, lu ab yonent daan def ci aw nitam ngir ñu jaare leen ci aw yoon ba ñu texe tey texe ëllëg féete leen fépp dafa am ñu ca doon yonent bi muy awliyaaw yi ak saalixiin yi ci ki nga xam ne mooy Cheikh Abdou Khadre nekkoon ci eh, exemple boo xam ne bu bu bu mataroy la boo xam ne xëy na moom mooy li nga xam ne suñu mbokk li nga xam ne moom la ñuy seqal jotaay bi ci wàllu googu la war a ñëw Euh, jërëjëf Serigne Sam bu Sa Abdourahmane kaddu yi am na solo lool tënku na waaye leer na wan nga ne ñu ne ñu li doy salaam wax ne ak diinu nasiha mooy li mag ñu ne diine laab biir la laab biir mooy si biir day laab ci doo ëmbal kenn ab safaan doo ëmbal kenn lu dul noona nga xam ne yiw rek ngay feese ak sellal ngay feese ak dëgg ngay feese sa digganteeg sa borom noonu nga ko waxee ci jox ko lim moom lépp sa digganteeg téereb yàlla bi ci xam ne risaala bu jëm si ceew la nga ko ci ay ndigalam bàyyi ay tereem saa boo xëppee ko waare nga xam ne yow lay waxal lu mu teree nga ba lu mu digal nga def loo ci man yonentu bi it nga ne yow la yàlla da ko yónni woon ngir mu nekk sa njiit nga topp ay ndigalam ni ko waxee wa maa ataakum rasulu faxudu wa maa nahakum anhu fantahu say njiit yi wuutu yonent ci yow it nga dafa jëflante ñoom ci noonu waaye nit ñi nga xam ne it mooy mbooloo mi nga laabire leen te wan yoon di leen teete dox ci lu tax ñu mucc boo liggéey kon loolu mooy laab biir na nga ko waxee am na solo lool kon muy xadis boo xam ne ci jawaam yool kan mi ngi ko waxee li yàlla baaxee woon yonent yàlla Muhammad alayhi salaam ay baat yu néew yu fees dal ak jariñ yoo xam ne tey bu ñu fi doon bëgg a salaat lépp sax mën nañ fay yendu waaye Sëriñ Fallou ginnaaw bu ñu sant Sëriñ Saam ci tënk ko mu tënkal xadis am solo boobu nga xam ne ci waxu yonent bi yi mat di téye saa su ne la di ko fàttali nit ñi ndax ëmb gum amul njëriñ yaatu euh, Mawlaana Cheikh Abdou Khadir Mbacké radiyallahu anhu ñëpp xamoon ko ci baax xamoon ko ci yiw xamoon ko ci bëgg ak njub xamoon ko ci baatu istiqaama ñun la jëmmale waxi sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ذوي الرضوان والتمكين mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di sant yàlla bu baax itam ci jataay bi ak it ñi nga xam ne noonu lañ ko doxalee lépp mu doon loo xam ne tegu na ci anam gi nga xam ne moom la war a tegu macha allah di ziyaare suñu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañ bokkal ci taay bi di sëriñ Bakka Sambu Sambu Abdourahman di rafetlu itam kàddu yi nga xam ne jiital nañ ko te laytaaye ko macha allah waxtaan wi tomb bi muy tomb bu am solo ni ko waxee. Euh, di ndokkeel ñëpp nag ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal di bisub Cheikh Abdou moom yi nga xam ne tey jii moo ñu fi dajale ñu war a waxtaan ci digganteem ak xadis boobu nga xam ne moom la bokk yu baax yi doon leeral euh, te sëñ Mbàkke indi ci lu am solo sëñ Saamit ñu saraa ci lu solo moom it nii Cheikh Abdou Khadir dundee xadisu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu nga xam ne mooy ad diinu an nasiha ci juróomi eh, eh, xëy na mën naa doon maanaam mixwar wala ay ay yi nga xam ne moom la xadis bi junj bi ci njëkk muy diggante jaam bi ak ak boroomam digganteem ak alquran digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak ñi nga xam ne ñooy kilifay jullit ñi ak digganteem ak mbooleem maanaam mbooloom jullit mi yëpp loolu bu ñu doon tënk Cheikh Abdoul Khadir taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci ci dund xadis boobu ak dundal ko mën nañu wax ne sëñ Abdoul Khadir moom mooy xadis bi rek boo ko dee set ndax sëñ Saam ci biir ni mu xamlee bi muy xam ne léegi baatub nasiha ak sëñ sëñ Mbàkke xam ne lañ ne nasiha wolof da koy firee laab biir nit ki mënoo ko laay biir te laaboo biir ba noppi euh, yaakaar naa sax baat bi boo delloo ci cosaan la dana tekki lu lu sell lu lu weex lu set loo xam ne daal raxul dara loo xam ne dafa dafa set wecc ba ci atawbatu nasuux tuub gu sell lañ koy firee kon ci baatum nasuux boobu la jóge euh, Cheikh Abdou Khadir nag boo ko doon xool aw doxinam ci wàllu laab biir wala laay biir nga tàmbalee ko ci fi hadis bi ma tàmbalee mooy lillaahi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moom la leen salaa sallam njëkk a joxañ ne kuy def nasiixa ci moom nga koy njëkk a jëmee si saam leeral na ni ñu koy ni ñu koy defee la jiitu muy gëm gëm suñu borom gëm goo xam ne gëm gu dëggu goo xam ne dara du ko kooj kon mooy wéetal ko wéet goo xam ne day wéetal goo xam ne doo ko wutal moroom ci lenn doo ko wutal ndend ci lenn foofu nag buñ fi xoolee Cheikh Abdoul Khadir dinañ gis ràññeeku gi mu ci ràññeeku woon ak it jëmmal gi mu jëmmaloon tawxiid ci boppam te bokk na ci li koy firndeel ci lu ñu xam ci moom ku ko miinoon walla nga jaxasoog moom walla nga xam tuuti ci ak dundam mooy bàyyee gi mu bàyyee woon ak bàyyee gi mu bàyyee woon boppam ak borom muy ak wakiloom ndax moom dafay ab jullit dëgg Cheikh Abdou Khadir day jullit dëgg boo xam ne euh, melo yooyu nga xam ne boo demee ci suratul anfal ci ñaareelu aaya ba suñ borom mi ngi ciy tudd ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla dëgg te mu mat maanaam juróomi melo Cheikh Abdou Khadir dafa jikkoo woon jikko yooyu meloo woon melo yooyu te yooyu euh, suñ borom ma ngi ciy tudd wakkiirlu gi nga xam ne jaami yàlla yi wala ñu gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dañ ko wakkiir seen borom Cheikh Abdou Khadir nag ràññee ko woon na lool ci ak tawakkul te dafa te moom tawakkulam dafa bokk ci tawakkul yi nga xam ne yi gën a kawe maanaam ci gaa yu baax yi gën a kawe yi nga xam ne ñoo gën a jege seen borom ñoo gën a xam seen borom ñoo gën a ragal seen borom euh, man si cee joxe ay ay misaal ngir ki nga xam ne mooy teewul mën a am lu mu jël mën a jariñoo lu teew lay doon wala boog lu jàpp ni mbaa xam ne lu yomb lay doon doonul maanaam négul rek ba doon ki mu doon doon maanaam mag wala wala mu kàllaf soog a wane tabakkul googu dañuy faral di nett li ñi nga xam ne ay bokki daaram lañ woon mel ne suñu suñu baay bu baax ma Cheikh Abdou Salam bokk naa Cheikh Abdou Khadir nekk Gédé ko faral di nett di wax ne bi ci daara ji rek nii nga xamee ne ñaare ku maanaam bokk fu mel noonu léeg-léeg lay faral di defal yoo xam ne day doon ay xeeti muslaay ak xeeti xeeti yooyu euh, yooyu nga xam ne yoroon na ko ci nee na teel naa tàggook moom lool xam ne dafa jékki-jékki rek xëy benn bis jël yooyu yooyu xeeti xeeti takka takkaay yooyu wala xeeti téere daal yaa ko mën a tuddee ay muslaay euh, gas ba mu xóot mu mu suul ngir wane ne moom euh, dafa bàyyee boppam ak léppam li nga xam ne moo di borom subhaanahu wa taala du sukkandiku ci lenn wala ci benn sabab boo boo xam ne buy dox diggante maanaam digganteem ak boromam la loolu kon misaal la ci wa ala rabbihim yatawakkaluuna jooju nga xam ne moom laa doon junj léegi ca aaya ba gi suratul anfal muy wakkilu gum gum gum gum wakkilu woon ci borom te loolu day màndargaat gëm gi gëm gi nga xam ne mooy gëm gu dëgg gu gu gu kawe goo xam ne ndax gëm bu xasee nekk ci xol dafa war a am lu mu jur war a am lu jur loo xam ne euh, benn dana feeñ ci làmmiñ waaye ay cërit dana ko firndeel ay cërit dana ko firndeel kon bu dee ci diggam ak boromam loolu mooy li nga xam ne moom mooy liñ ci war a njëkk bàyyi xel mooy ak ak ngëmam fi fi mu tegoon suñ suñ boroom loolu it taxoon na mu taxaw taxawaay ba gën a mat taxawaay ba gën a rafet ci topp boroomam ndax topp boroom gi day firndeel ngëm gi loolu ci doon joxe ay misaal daanaka mën nga ci wax lu bari loo xam ne doo ko jeexal ci wàllu jaamu yàllaam ci wàllu ak ak ak ci moo xam dëng ay julleem moo xam ay kooram moo xam ya nga xam ne moo cay farata moo xam ya nga xam ne moo cay dégg nga nawaafil la yooyu boo ci jël rek <coughs> day doy misaal bu leer ci ni nga xam ne noonu noonu la Cheikh Abdou Khadr doon taxawee taxawaay ba gën a mat te gën a jot te gën a yaatu ci lépp loo xam ne topp yàlla la ci maanaamu yaatu bi nga xam ne am na ko nga xam ne du xëy na sax du rek sax jullee ko war ak yooyu rek waaye mën naa weesu loolu bokk na ci itam ci lii firndeel euh, ngëmam googu ak ak ak ak ak laa biiram wala ak laay biiram diggam ak boroomam mooy bu daan bëgg da daan bëgg te yàlla tax Cheikh Abdou Khadre da daan bëgg te yàlla tax ndax lépp maanaam képp ku muy sob wala képp ku muy àndal mi ngi xool ci yow suñu borom subhanahu wa boo dee koo xam ne dangaa doon maanaam ku gëm yàlla doon doon dégg nga ab jullit rawatina nga doon borom xam-xam wala nga doon ku baax wala nga doon ab jaamukati yàlla la def ci boppam da daal def na boppam loolu sax tax na ni ñu ko faral di nettalee wax na ne mi ngi daan tànne ay xaritam wala ay soppeem ci biir jàkka ji maanaam ci sàppe yi saa bu la gisee ngay fonk jàkk di fonk julli di fonk jaamu yàlla moom kenn mënatu koo wax ci yow luy tax ab safaan ab safaan tax ndax moom boo waxee mu naa moom kat mi ngi julli si moom kat buñ jeesoo gis ko ci ci ci biir jàkk ci ci biir jàkk ji nga xam ne kon jaamu yàlla googu mu nekkoon moom maanaam jàpp na ne képp ku ci nekk rek yow moom dalay daal di jàppee ni nga xam ne noonu la jàppee boppam te loolu te te cofeel googu day doon ak cofeel goo xam ne yàlla rek koy lal ndax fillaahi lay doon walillaahi noonu itam e, ci ci ci ci diggam ak boroomam noonu la daan féeteeg wala e, farak képp koo xam ne da ngaa jóg topp yàlla comme ni ma ko waxee léegi yooyu yëpp day màndargaal rek gëm gi ak ni nga xam ne noonu la bàyyi woon xel boroomam waaye bokk na ci te màndarga yi mooy ni mu daan nangoo xéewali suñu boroom yi maanaam daan ko itiraaf lépp loo ndax loolu day day day bokk ci ni nga xam ne noon noonu la borom xam-xam yi jàngalee euh, ci bi ñuy firi xadis boobu euh, maanaam an nasu lillah wala boog an nasiha lillah euh, laay biir ngir yàlla mooy saa bu la yàlla defalee xéewal nga itiraaf nga nangu ne lii kat yàllaa la ko jox doo ko moomale keneen ku dul yàlla te it saa boo nangoo xéewal gi. da ngay jóg jéem a sant xéewal googu ci anam gi nga xam ne moom la suñu borom bëggee ñu sant ko xéewal googu boole ci nag di sellal te yàlla tax lépp lu muy def Cheikh Abdou Khadir lépp lu mu daan def da ko daan def ngir yàlla mësul def ngir ngir ngir ngir ngir ku ko tagg wala muy bàyyi ngir ku ko ŋàññi wala muy def ngir àddina wala mu ngi def ngir ngir ngir alal wala ngir leneen dafa jiitaloon boroomam ixlaas boobu nga xam ne euh, bokk na ci ñaari ñaari mbir yi nga xam ne mooy tax suñu boroom Euh, nongu jaamu yàlla ab jaamam te mooy sellal maanaam def te yàlla tax jaamu yàlla te yàlla tax waaye liggéey ngay defet nga di ko dëppale ak anam gi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam yooyu ay ay ay mandarga la yoo xam ne Cheikh Abdou Khadir euh, firndeel na ci ci aw doxinam ak ak ci wàllu diggam ak boromam ci euh, laa laa biir googu mu mu set xol googu mu amoon yéene googu mu yéene woon ñëpp jàmm waaye nag lii nga xam ne moo ci na moo ci aju ci ci diggam ak yàlla suñu suñu borom subhanahu taala moom da cee nekkoon lu fés da cee nekkoon loo xam ne léegi nga ràññeeku la tey bokk na ci euh, luy firndeel ne daana laay biir ngir yàlla wala wala daana doxale ak laay bi digg diggam ak boromam mooy ñeewantu gu mu amoon ci mbindeef yàlla yi ndax mbindeef suñu borom itam dañuy ñoo xam ne suñu borom da leen sàkk yéene leen jàmm loolu Cheikhul Khadim waajur bu baax ba di wax ne kunu muhibbina alxuyuura li jamia xalqi ilahina almuqaddimi samia wala muqaddimi albadia na nga soppal mbindi fi yàlla yëpp na leen bëggal jàmm na nga leen bëggal aw yiw te boo koy def it bu ko def ngir lan bu ko def ngir ñoom bu ko def ngir dara waaye na ko def ngir yàlla mi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy jiital te mooy sàkk te mooy dégg nga bind kon Cheikh Abdou Khadre itam ñeewante googu amoon na ko ci ñoom di leen yërëm waaye nag daan ànd nag ak dëgg fu dëgg ma sa nekk fa wala Cheikh Abdou fa safaanub dëgg nekk foofu sori na ko moo tax soo soo soo soo masaana bëgg jaxasoog moom te nekkoo nit nit koo xam ne ku dëggu sax ngay doon da nga jaxasoo jaxasoo gi du mën a nekk moom dafa nekkoon koo xam ne ku dëggula woon ci ay waxam dëggu ci ay jëfam waaye dëggu ci ay jëflanteem ba moog dëgg moom ñoom ñaar ni lañ jëfoon dañoo dañoo maanaam taqoo woon waaye dañoo nekkoon itam dégg nga benn boole ci nag am jikko yu rafet ci diggam ak doomu aadama yi ni nga xam ne noonu la amee woon ragal yàlla guy goo xam ne moo moo moo dox diggam ak boroomam gu kawe gu gu jég gu màgg goo xam ne gu gu yéeme la ba yooyu nekk loo xam ne daa firndewu ci ay ci ay jëfam ak ci ay waxam ak ci aw doxalinam noonu itam la diggam ak jaami yàlla itam mu doon jëflante ñoom dégg nga jëflante bu rafet boo xam ne yëpp soo soo delloo ci dundam ak ni nga xam ne noonu la doon maanaam doxale noonu la doon dunde dañ ci gis ay firnde kon ci tënk di diggam ak boroomam mën nañu wax ne gëm gi mooy li nga xam ne moom moo doon suuxat lépp loo xam ne jëflante la buy tax laay biir googu wala laa biir googu mën a nekk loo xam ne lu mën a teg baaraam la ci Cheikh Abdou Khadir ci tënk bu gàtt rek bi ci des muy maanaam beneen mixaar bi mooy laay biir ñeel téere bi yàlla bi ñeel alquran loolu itam sànq ñu ngeen ko buñ ko waxee mooy foo toll ngay jàng alquran jàng dëgg dëgg nga xam ne moo ci war jox ko sa di défendre téere bi euh, di dëggal li na ci téere bi euh, jéem a xamit maanaa yu xóot yi nga xam ne moom la téere bi ëmb di fexe yittewoo ak ak di jëfandikoo waare yu rafet yi ne ci alquran léeg comme ni ko Sëñ Mbàkke waxee nga xam ne lépp lu yàlla digle nga jàpp ne yaa ko moom lépp lu mu tere nga jàpp ne yaa ko moom maanaam yow la ko tere la mu digle nga def ko la mu tere nga bàyyi ko booleeg nag dégg nga di jëfe téere bi ci boppam ak di tasaare xam-xami téere bi ak di soññee jëme ci ñu fonk téere bi ni ko wajur mu baax ba daan defee yooyu day ay mbir yoo xam ne bu ñu xoolee dundug Cheikh Cheikh Abdoul Khadir da ca ràññiku lool fu mu toll am na dog bu daan jàng ci alquran boo boo xam ne moom comme maanaam ni ko xamee woon nga xam ne dafa nekkoon ku ponctuel ci waxin nga xam ne lenn lu nekk wutal na ko waxtu war a def saa bu waxtu ba jotee dana ko def ak lu mën a doon amul benn benn benn amil xaariji yi boo boo xam ne wala sax daaxili yi boo xam ne mën na ko te mën naa tësit mën naa xëy na influencé ci moom ba tax mu ër wala mu yeexal wala mu tardeel ak jëng nga jaamu yàllaam ab dogam waqafam wala de wérdam wala yu mel noonu ah, dégg nga xisa yi ci nettali bi ci ay ay jamono euh, ma magam ju baax ji soxna muy dégg nga soxna maanaam soxna soxna Maymunatul Kubra Euh, bi mu bi mu bi nga xam ne wàcc na liggéey ñu ñëw di ko ko jaal di waxtu yoor yoor nga xam ne ay yu baax maanaam ay ay ay kàngam ay kilifa yu baax fi nekkoon waaye bi nga xamee ne waxtu yoor yoor bu jot na dafa daal di jóg rek daal di dem dégg nga fas taxaw yi loolu nga xam ne mooy ndigal yàlla li bi mu ñëwee ñu di ko wax naa nga ki naa nga mun a ah, waaw moom kat ginnaaw euh, dafa liggéeyal boromam ba wàcc dem dem dem dem dégg ñibbi man man nag ma man maa ngi fi dégg di jaamu yàlla di ko liggéeyal te ki yëgu ma maanaam te wàcc ma kon moom du ma yàqal sama liggéey <laughs> du ma kon kooku gis nga foofa euh, foofa foofa la tolloon ci euh, fonk fonk euh, jëfam ak ak di def ci waxtoom kon bu dee ki digg ma alxuraan da ko daan jàng dégg nga di ko ma jox ko xolam ko ba noppi dégg nga di ko défendre fu mu toll di di di di di di di bàyyi xelit li suñu boroom wax ci alxuraan mboolem ñi nga xam ne miin nañ dégg ay jotaayam daan na sàkk ay waxtu yoo xam ne. Euh, alxuraan la ki daan waxtaane léeg sax mu dugg ci aaya yi di ko tafsir di ko firi di ko leeral euh, léeg-léeg sax mu ciy jubbanti mu ciy jubbanti ñoo xam ne xëy na am na yeneen déggin yuñ ci amoon yoo xam ne euh, xëy na mën naa bañ a xëy na bokk la mu doon daana defit léeg-léeg waxtu yoo xam ne moom da ko daan teg sax ci rajo bi waaw nga xam ne moom da koy day toog di ko diglu léeg-léeg su su agsee ci ci aaya boo xam ne maanaam bu mat a taxaw mat a leeral la mu pose ko ñu ñu ñu fay ko mu ba mu taxaw mu daal di firi booba saraa ko leeral ko ba ba mu duggaat ci xel yi gën a gën a yeesaat ci ñoom mu dégg ñu soog a jàllale euh, kii bi euh, li nga xam ne mooy njàng mi kon euh, joxoon na joxoon na al alquran maanaam gëddaam te loolu it yaakaar naa nekk lu yéeme ndax ku xam Cheikhul Khadim fi mu tegoon alquran ak lim ci wax ak lim ci soññee lim ci def bu Cheikh Abdoul Khadim ñëwee mel noonu doon na ko ci lépp ci biir ak biti defe naa ne du doon kon loo xam ne kiimaan la boolem daal loo xam ne luy dund la luy tax Euh, euh, waxi suñu borom ji dëggu ci moom inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu lahafidun jooju Cheikh Abdoul Khadir da cee taxawoon te yaakaar naa ne man mii di wax a yéen sama naa ko day misaal ba ci sëñ Mbàkke ñoom ñëpp tey ji ku ci waxoon tey ci ni mu la taxawoo ci sam jàng alquran euh, man fii fii ci këram bii la ma dalale alquran maag sama rakk joo xam ne moom la moom moo ko tuddoon moo ko tuddoon tuddee ko boppam ak ak ñaa yaakaar naa ñu bari ba noppi diirub li ngay ne ci daara ji booba téere seen jëmb yi moo xewoon waaye téere bu bu bu bu maanaam bu xar moo lay jox téere bu bees fu mu toll dégg nga di la nemmi ko euh, boo demee ba siburu sax maanaam su ko yëgee day yónni dégg oto boppam ak maanaam chauffeur boppam nga xam ne mooy ñëw jël si la yóbbu la ci aañ wala ci docteur yi ñu seet la faj la boo boo ñëwee mooy jënd ordonnance bi loolu di maanaam taxawu ñuñ daara taxawu dongal daara ba sa alxuraan mat moo tax keroog bi sama bi ma bi ma bi ma àggalee sama alxuraan kaamil bi ma njëkk bind maanaam kayit gi ma ko ko jox kayit gi keroog laa ñu jébal ko ko fii muy loo xam ne kon maa ngi sant yàlla baax kon euh, kenn ku ne si ñun ñi man ngaa doon misaal moo xam ne man ngaa taxaw wax ne si Abdou Khadir jëf na ci man sama diggante alquran loo loo xam ne ci loolu lépp day dugg ci biir an nasihatu lii kitaabillaahi kon euh, ci tënk rek bi ci des muy nag diggam a gën saa salaam loolu moom di lu yaatu di lu yaatu loo xam ne euh, ni mu fonke woon sunna ak ni mu ko daan dundale wax nga ko léegi ndax Euh, laay biir ngir ngir sallallahu alayhi wala ngir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dara jiituwu ci nga dëggal ak risaalaam nga nangu ko te foofa la nekkoon nangul yonent bi lim kim kim doon nangul ko lim doon waaye gëm ko itam nag dégg nga di ko topp fu mu toll lii euh, euh, maanaam kii nga xam ne mooy dégg nga way juróom bu baax wa doon doon doon doon itam sëriñam daan wax ne laysat liyal yawma xaajaatun u ammiluha si waqti faa ika xafal xalbi wal badani aw ma benn yitte aw ma benn soxla ci tey jii ak ëllëg lu dul eh, jël sama fépp salaa salaam tegoon tànk ma jël sama tànk bi teg ko fa di ko xeeñcu ci xol bi waaye di ko xeeñcu itam ci sama dégg nga yaram ci sama jëmm Cheikh Abdou Khadir itam noonu la doon dundee sunna daan daan ko da da daan waxuma dundal sax daan topp sunna waaye da ko daan sax jàppale da daan da daan maanaam défendre sunna kon mooy da daan xeex bi daa loolu itam day day tàbbi ci biir laaye biir. ngir yonent bi wala ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, képp kum gisit nag nga nekk nituk sunna mu daal lay bëgg xaritoo ak yow dégg nga di jëflante ak yow waaye kum gis nag yow nga doon ko xam ne dégg nga nituk bi daa nga nag ah su boobaa nag moom dana la jéem a fexe ba génne ci loola su fekkee mën na ne bu ci bu ci amul pexe nag mu daal lay bàyyi nag dégg nga seetaan la loolu euh, ba noppi nag euh, fexe ba sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu ñu maanaam ñu gën koo fonk gën koo wekk gën koo bëgg gën a fonk sunnaam gën a dégg ma gën koo dundal euh, taxaw ci di ko tasaare walbatiku jikkoo jikko yonent bi sallallahu alayhi ba nga xam ne soo koy xool euh, tey tey xool siira dégg nga di méngale saxaaba yi ni ñu daan def ak sallallahu alayhi ni ñu daan toogee moom ni ñu daan waxee ni ñu daan soloo ni ñu daan kaalawoo te ñoom ñu roy ko ci sallallahu alayhi wa sallam day dafa dund jamono yi yonent bi sallallahu alayhi saxaaba yi nga xam ne ñoo fekke woon jamonoom bañ nañ bidaa loolu it nag koo mën a doon loo rëy rëy daraja lu sa maqaama kawe kawe boo ñëwee fi kanam jëf-jëfi bidaa mu daal di koy weddi fa saas daal koy dindi fa kon kon sunna rek ko ñoroon am am na ku ko mas a laaj ne ko waaw tey jii su ma demoon ba bëgg bind ci maanaam sa biographie bind bind loo xam ne dama koy tënk rek ci ci benn téere bu gàtt wala benn baat bu gàtt lan laay wax mu ne ko xanaa ngeen rek moom kat sunni la sun sunni su nuyu nag yaakaar naa ne sëñ bi ku ko doon saraa <laughs> dañ ci mën a jëlee lu lu lu bare bare bare kon digg ma salaatu salaam moom euh, yaakaar naa ne comme comme maanaam dañuy tënk rek mënees na koo tënk foofu waaye yaatu na lool sëñ Mbàkke boo ñëwee ci commentaire yi xëy na mën nga ci gën a kii bi ñu des nag nga xam ne mooy kon ñaari mujj yi nag mooy laaye laaye biir ñeel ñi nga xam ne ñooy kilifay jullit ñi sëñ Saam tudd na ko léegi bu ñëwee kilifay jullit ñi maanaam borom xam yaa ngi ci biir. kilifa yi diine yaa ngi ci biir ñi nga xam ne ñoo jiite jullit ñi te dégg nga maanaam mbiri jullit ñi yàlla te ko ci seen loxo foofu itam wax wax na ko ni mu ko daan defee rek mooy ni ko xadis bi maanaam leerale rek mooy daan leen jàppale ci dëgg képp koo xam ne yaa ngi ci dëgg seen seen doxaat da lay di la taxawu dégg nga di la ci soññ du du yem ci loola sax waaye da lay dimbale sax ca loola da lay ci loola mépp mbooloom jullit wala kilifa ak jullit goo xam ne xam na ne yow mii yaa ngi ci njub di woo sa mbooloo ci njub di leen ci soññi day xaritoog yow da lay sopp dégg nga di la maanaam taxawu ci loola euh, fexe ba it maanaam jullit ñi seeni xol euh, nekk xol yu tàppoo xol yu bennoo ngir topp ki nga xam ne moo fi nekkal jullit ñi ku ne xam na ne moom bi bi nekk te amoon kilifa ci waa kër Sëñ Tuubaa dafa toppoon kilifaam euh, mën na joxe misaal ku mel ne ki nga xam ne moom yàlla da ko boole woon sax dégg nga xilaafa gi nga xam ne mën mën na wax ne ñoo ko bokkoon mu nekkoon magam doonoon wéttalam doonoon xaritam mu Cheikh Abdoulahi Lahad gis nañ ni mu ko joxe woon cër nga xam ne bu julli ayit masaana jot euh, balaa génn ci kër gi dina laaj ba xam ceeb di ñoo naam déet faaw mu mu laaj ba xam ndax ndax ceeb laaj ñoo naam déet xalaatute jiitu mukk si ñëpp laaj ci jullikaay ayit bi waaw ngir rek bàyyi xel gu ko bàyyi xel euh, ak ak it jàngale wane ne kii kat suñu kilifa la ñun ñëpp moo fi maanaam toogal Seexul Xadim ba gis nañ euh, ci tabaski goo xam ne ceeb laat di benn discours bu mu doon def ci wàllu rajo yi ba ba muy wax ak Seex Abdul Xaadir Euh, sëñ Abdou Khadre maanaam da ko doon diglu diglu koo xam ne kii kilifa mooy wax ak moom waaw mu ne ko sëñ Abdou maa ngi lay xamal ne ba naan ko on oh, oh, bàyyi xel lu mu wax mu ne oh, maa ngi diglu te fës na maa jëfe te te ginnaaw moom boobu mi ngi toog toogaay doon imaamu dégg nga jullit ñi doon doon imaamu dëkk bi euh, bari mbooloo mu bari topp ci ginnaawam waaye mu xam ne nag kii nag mooy xalifatul muridin kon mooy ki nga xam ne moom la ñu war a diglu waaye loolu lépp kon di loo xam ne euh, day dañuy jàngal rek ne xol yi dañoo war a booloo ci ngir topp seeni maanaam xoli juddi ñi en tout cas dañu war a booloo ngir topp seeni kilifa ba bañ leen a kii ci bi bi ci des muy euh, nga xam ne moo ci mujj nag mooy la laaye biir ci ñi nga xam ne ñooy mbooloom judin bi ñooñu itam suñu saam juñu na ko mooy daleen daan maanaam dimbule ci xam-xamam daan leen dimbule ci alalam daan leen dimbule ci xalaatam daan leen dimbule ci ay ñaanam te ku ne xam ne yàlla defaloon na ko tawfiq ci ci baaxu Sëñ ak sell gum selloon sellu biir laa biir Sëñ Abdou Khadre mooy an nasiha ci maanaam ci boppam mooy la la la laa biir googu mu laaboon biir nga xam ne xolam mosu cee yéene kenn lu ñaaw mosu cee bëggal kenn lu ñaaw li mu yéene boppam la yéene woon ñëpp fa Seexul Xadim nekkoon yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al loolu la dund moo tax mu nekkoon koo xam ne daan dimbale jullit ñi ñëpp ci ci ci ay waxam ci ay jëfam di leen nëbbal seeni awra saa bu gisee njariñ loo xam ne lu jëm si ci ñoom la mu gaaw dem jëli ko xëcc ko andil leen ko su gisee loo xam ne lor la joo xam ne dafa jëm si ñoom mu njëkkante lor joojee fexe ba jañ ko ba mu sori leen ba noppi nag di leen digal nag fu mu toll lu baax léegi rek wax nga ko gis nga istiqaama jooju nga xam ne dafa doonoon dundam dafa doonoon léppam mm, waxtu wu muy soññee waxtu wu muy waxtaan dana ne su waxee ne nañ jaamu yàlla ci sunna te moytu ni ko ak tooñ day sax ci listiqaama te listiqaama nag yaakaar naa ku waroon saraa moom it da nga xam ne mooy lépp ndax fastaqim kamaa umirta ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu wàccee rek booba la sallallahu daal dégg nga bejjaaw comme ni ko jàng ci ci ci ci yi ci téer yi firi maanaam yi nga xam ne mooy firi alquran kon digle lu baax ak tere ab safaan bëggal mbooloom jullit mi li mu bëggal boppam di leen défendre di défendre seen alal di défendre seeni bakkan di défendre seeni der waaye di leen soññ itam nag ci ñuy jukkowoo jukkoy sunna yi jukkoy sallallahu alayhi wa sallam yi kon nii daal ci tënk xëy na boo ñëwee si Mbàkke dama ko gën a mën a sara waaye mënees naa wax ne Sëñ Abdul Xaadir mboolem maxaawir yi xadis bi indi yëpp muy lillaahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimina wa amatihim Sëñ Abdul Xaadir benn bu ci nekk taxaw na ci taxawaay boo xam ne bu ràññiku la buñ mën a nafar la buñ a jàng ngir mu nekk euh, ay bind ay waare yu rafet yoo xam ne incha allahu taala ku bëgg a jëriñu di ci mën a Euh, jërëjëf El Hadj Fallou macha allah am na solo te leer na ni Serigne Cham leerale woon xadis boobu wax dëgg yàlla itam ni nga ko ni nga ko solee Seydi Abdou Khadre jëmmal na li nga waxoon ci tàmbali bi ne moom mooy mooy xadis bi loolu nag la kilifa yi bëggoon ci waaj gi ñuy waajal bis bu tedd boobu ne faaw ñu xam ne bisub bisub barke la bisub xewal la kon fàttali nit ñi lenn ci jikko Sëriñ Abdou Khadre yooyu ñu xam ne ki ñuy màggalal yayoo na lépp luñ ko jëme ci aw yiw ndax taxawaayam ndax meloom ndax lim doonoon ak fi mu féete woon kon mën nañu xadis boobu mooy diine kon Sëriñ Abdou Khadre moo doon diine mooy an naasixu lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aymatil muslimin lu ci nekk andi ci misaal moo xam ne bu jataa bi yaatu woon dañ ci leeral lu bare bari indi ay firnde yoo xam ne mbooleem ku jege woon sëñ Abdou Khadr xam nga loolu kon mbokk yi loolu day wane rek ne yonent alayhi salaam li mu indi woon yàlla jox ko ko ma ateekum rasulu faxuduhu jooju mu waxoon moom la sëñ Abdou Khadr jëfandikoo ci xadis bi noonu la ko jëfandikoo ci yeneen xadis yëpp kon lépp lu ko yàlla dégaloon ma ngi ca woon te mës def lu ko yàlla tere kooku nag euh, ku yàlla dogal nga ne ci ronam sa xel war naa dal waaye bisa nit loo ca mën war ko caa def ndax ku ne ci ñun rek jinne la yiw ak xéewal goo xam ne war nga saa su ne di ko fàttaliku ci ñaan di ko fàttaliku jëf jëf jëf yu baax di ko jëmee ngir yàlla dolli ay ngërëmam yàlla dolli ay maqaamam ci si aala loolu la kilifa yu jublu woon bokk ci li ñuy waajale bis bu tedd boobu nga xam ne mi ngi dëgmal ñu di ko bàyyi loo xel mbokk yëpp kon mbokk yi lii ab bind rek la ci bind yooyu nafar tuuti ci dunduk Sëriñ Abdou Khadre Mbacké gu barkeel gu tedd googu nga xam ne lu ci waaye jël lu mu boo ko jàppee tëgg ko bàyyi da gën say morom kon ñu ngi sant mbokk yi ci turu sëriñ Sidi bi nga xam ne moo euh, amal jataay yi ci ndigul ay kilifaam ngir euh, taxawu màggal gi ak waajal ko euh, sant sëriñ Sam bu baax sëriñ Fàllu ñoom nag ci njaboot gi lañ naka jëkk nii la ñuy doxee lépp lu leen sëriñ bi soxla day ñëw kon mi ngi leen sant di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfiq di wax mbokk yi ne leen wax ju am solo nañ ko bàyyi xel te téye ko te fas yéenee nuru Sëriñ Abdou Khadre dara yooyu. danañu jëriñ tey ëllëg euh, dana taxit bu ëllëgee ñu man ñoo boole ca euh, ñu tedd ñu nga xam ne euh, kuñ tudd tudd leen nga kii lu fecceet nag bu àllaaxira ñu ngi jéggul mbokk yëpp di baalu di sant mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo ko jàllale di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.